ñetti at boobu ba léegi ñoom ñooy nekk ci li nga xamante ne ñoom ñooy centre yi ñu fas yi ñu tab ngir mën a fecc ñooñu nga xamante ne virus bi di corona bi daf leen daal di daalal daaneel euh, Elimane Fall ñu ngi lay wax dalal ak jàmm waaye laata loolu ñuy rafetlu vraiment nangu bi nga xamante ne nangu nga ko ci suñu invitation bii de fii ci rajo Rewmi FM. Euh, waaw comme on dit ni nga xam ne noonu la ñuy réagir bu fekkee ni urgence dafa taxaw mu jublu ci yéen noonu rek ngeen di réagir bu fekkee urgence dafa taxaw aussi jëm ci ñun. donc ñun ñoo leen war a remercier ñun remerciement boo xam ne amul dayoo. Mm-hmm. Euh, Elimane dañuy tàmbali rek ci li nga xamante ne moom moo di CTE yi ñu gën ko xam ci centre de traitement épidémie épidémie bi ñu bi ñuy même bu fekkonte ne am na mais li nga xamante ne moom moo di corona bi moom moo tax xam naa ñu gën ko sam tey jii rek ñu bëggoon rek nga wax ñu yooyu les centre ci fan ak fan la ñu nekk ak ci lim ñaata lañu ñu. bon centre yi ñu ngi leen di implanté un peu partout dans la région de Dakar ak dans toutes les régions yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi. Mm-hmm. même si au début de la pandémie euh, à l'hôpital Fann rek moo amoon spécificité recevoir ce qu'on appelle les maladies infectieuses maintenant par extension ak grandeur bi nga xam ne moom la virus bi ñëwee il fallait ñu def extension installer centre yi ci hôpital yu mel ni Dalal Jàmm principal en tout cas tous les hôpitaux à Dakar mm-hmm. mais aussi ñu def extension dans les régions euh, ak restituer même yenn endroit pour yu mel ni hangar du pèlerin de l'aéroport et mm-hmm. donc c'est un peu partout au niveau du Sénégal le nombre exact je sais pas mais pour ce qui concerne Dakar c'est toutes les tous les hôpitaux yi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir Dakar amoon nañ benn CTE même si le CTE de l'hôpital Dalal Jamm moom mooy moo doon accueillir le plus grand nombre de patients yi nga xam ne ñoom ñoo amoon Covid 19. Euh, Dalal Jamm euh, nekkoon le plus grand xam naa ni mu yaatu moom moo tax. Euh, euh, géré woon lépp lu jëm ci Covid bi nekkoon na lu métti ñu bëggoon rek tam xam tey jii donte ñu ngi wax kaa yi wàññeeku woon nañ ba zéro démb moom yéegaat nañu nekk vingt 27 boobu ba léegi naka ngeen engagé woon vraiment pour euh, assurer les premiers soins wala jàppale ñi nga xamante ne virus bi daf leen sonaloon. bon comme comme euh, à chaque fois comme on dit ñun bu ñu choisir le métier de la santé c'est qu'on a choisi un secteur boo xam ne dañoo bëgg di servir mais secteur bi du ñu servir en retour donc bi nga xam ne pandémie bi taxaw na il fallait ñu nekk au premier plan même si ñëpp jaaxle woon nañ ñun on s'était préparé depuis toujours ci suñu formation à avoir ce type de problème là donc ni ñu organiser woo mooy comme benn nu bépp patriote ni bopp koo xam ne dafa am conscience patriotique ak bëgg réewam ni mu war a taxawee comme un soldat fexe ba nga xam ne virus bi nga xam ne moo ñëw du faagaagal population bi nga xam ne déjà dafa vulnérable loon ci côté santé mm-hmm. donc président de la république ginnaaw bi mu demandé collaboration bépp agent de santé bépp képp koo xam ne dafa nekk ci secteur médical bi ak paramédical a c'est ce qu'on ginnaaw ay famille bàyyi ginnaaw ay kër bàyyi ginnaaw papa ak yaay ñëw fas yee taxawoon continuer di taxaw d'ailleurs euh, pour jànkonte ja ja jàmmaarloo ak virus bi nga xam ne moom mooy Covid ba nga xam ne du faagaagal sunu papa yi sunu yaay yi ak le Sénégal de façon générale. Mm-hmm. mu mel ni benn moment yéen a ngi doon wax ne lépp lu soxal li nga xamante ne moo jëm ci wàllu matériel matali matale wuñ ko woon vide boobu wala manquement boobu naka ngeen doon def yéen ñi nga xamante a ci CPE yi vraiment pour bu malade bi jotee du ngeen xaar autorités yi ngeen assurer les premiers Bon, c'était, c'était difficile. C'était difficile parce que santé quand même, au-delà de, de l'aspect am, am humain du moins, dafa am loo xam ne moom moo gën a important moom mooy l'aspect matériel. Euh, ñun suñu pays en Afrique de façon générale dañuy faral di manquer yooyu mais toujours est-il que dañuy adapté wu. donc c'était très difficile mais li nga xam ne ay machine moo ko waroon def ñun dañ daan jël responsabilité di ko def donc loolu moom moo daan jafel liggéey bi mais au fil du temps on s'est adapté et quand il y a des xam ne def nañ ko même su fekkee ne lépp mateewul après maintenant au fil du temps yeneen vague yi on a eu mode de suppléance yi nga xam ne moom moo waroon muy côté matériel ba nga xam ne facilité woon na suñu liggéey bi mais il faut le dire au début de la pandémie quand c'était excessivement difficile parce que quand même contexte bi ñu fekkoon le Sénégal n'était pas préparé mm-hmm. ressources humaines bi manqué woon na matériel bi manqué woon na continuer di continuer di continuer population bi en tout cas bu ñu am gàllankoor donte ci ñun am na ci ñoo xam ne li ñu fayee sacrifice boobu mooy ñàkk seen bakkan. Mhm. Euh, justement par rapport ak euh, adaptation boobu xam naa ne def ngeen ay sacrifice euh, pour le bonheur de la population ndax ci jamono jooju vraiment yomboon na ngay def ay trois jours yoo xamante ne doo wàcc ñibbi sa kër ak i tamit ñàkk bi nga xamante ne ñàkk na nga ko doon di nelaw wala def ay activités impacté woon ci fonctionnement normal bi ngeen xam ne moom ngeen war a si bon comme l'être humain dafa am loo xam ne moment de repos repos lay doon ci ci ay activité c'était difficile comme on dit psychologiquement am na ñoo xam ne ils étaient atteints parce que mm-hmm. même au la fatigue c'était plus mental xam nga parce que la fatigue ñun tàmm nañ ko quoi mais l'aspect mental psychologique c'était vraiment extraordinaire mm-hmm. am na ci ñoo xawoon xam ne bon dañ daan liñ liñ liñ jàkkaarloo loon mosuñ ko gis donc des des papa et comme nous yoo xam ne dañ daan succomber du jour au lendemain ngay compter de nombre des nombres de décès yoo xam ne c'était extraordinaire exorbitant mm-hmm. amul woon benn accompagnement psychologique jusqu'à présent amul benn accompagnement psychologique donc euh, c'était moralement épuisant psychologiquement financièrement c'était vraiment trop trop trop difficile mm-hmm. mais toujours est-il que Euh, on s'est toujours montré résilient donc on a continué à nous battre et aujourd'hui alhamdulilah ñu ngi ci tendance boo xam ne sant nañ c'est euh, Sénégal préparé wul woon ci dalal euh, jàngoro boobu nga xamante ne ba léegi mu ngi def son bout de chemin ay at ba léegi mu mel ni rek ci jamono jooju lañu taxawal li nga xamante ne moom moo di CTE yi comme ni nga ko waxee léegi guddi yu ñu toll daanaka hôpitaux yëpp am nañ ko mais mu mel ni dañoo dem ba ci biir gestion. bu soxal lépp lu jëm ci wàllum CTE yi am ay jafe lan nga ñu mën a wax euh, ci seen ndorteel première vague bi de ba jamono ju ñuy àddoo ngeen di teewlu. effectivement donc euh, CTE yi c'est ab euh, dafa am loo xam ne dafa àndoon ak moom quoi seen installation parce que quand même CTE yi nekkul woon ay service à part ci hôpital yi c'est des c'était des services mais dafa amoon particularité mooy agents yi nga xam ne dañ fa daan liggéey dañ daan jël ay risques. parce que virus la boo xam ne kenn maîtriser wul ko woon jusqu'à présent kenn maîtriser wu ko ni ñëpp dañ ci amoon dal euh, scientifique yi gën a mag ci àdduna bi dañoo continuer di ci am dal ba léegi ñu wax avec exactitude lan mooy xaar nit ñi ci par rapport a contamination bi ak attent yi. Mm-hmm. donc ñun ñi nga xam ne dañ fa daan liggéey dafa am loo xam ne président de la république moom moo demandé woon à ce que ñu warloo ko ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy bi comme ni nga ko waxee c'était bien parce que loolu motivation la tuddoon c'était bien parce que ñu ngi ko daan fay bon expliquer peut-être mooy amoon na benn fonds boo xam ne mooy fonds force Covid 19 bi. Mm-hmm. population bi yëpp participer ci ñu dajaloo dajale ay xaalis bu bari bon amuloon problème ñu ngi ko daan virer mais dañu remarquer que ne bi ñu demee ba nga xam ne. première vague bi deuxième vague bi commencé na di jeex ba ñuy entamer troisième vague bi loolu dafa arrêté bi ñëwee ba mois de mai avril dañu gis ne lépp arrêté donc fayetuñ non seulement fayetuñ mais amuñoon benn explication buy buy buy buy wax lan moo tax exactement fayuñ lan mooy problème bi donc ñu gis ne c'était c'était pas acceptable parce que au-delà ak ak sacrifice yi nga xam ne def nañ ko yëpp li nga xam ne moo gënoon a élémentaire ci li ñu warloog ñun mooy sur le plan financier ñu assuré ñu mm-hmm. mais bu ñu demee ba nga xam ne nii dañuy toog ay weer di traîner huit mois boo jëlee hôpital Dalal Jàmm douze mois boo jëlee Sami National cinq mois boo jëlee Fann ak principal ainsi de suite yeneen hôpitaux yi am na ñoo xam ne mosuñu sax laal donc bu ñu tollee foofu noonu dafay xaw a donc mhm. moo tax on s'est dit comme ñi nga xam ne dañ ko seq ñoom ñoom mënuñu appréhender à juste valeur suñu sacrifice il faut que ñu dem sur le terrain wan leen ne am na ñoo xam ne dañu toogoon suñu kër yi du xaar te baax na ginnaaw bi ñu xeexee ak virus bi ba gagné ko pour le moment ñu dellu ci ñoom pour wan leen ne lii ñu doon def comme sacrifice lii lañ ci jëlee ñu mun ci ñu mun ko bokk ak suñu njaboot et cetera. ci ci ci benn daanaka dañ leen a tëjoon ndax loolu aussi tamit euh, gënul euh, fragiliser li nga xamante ne yéen a ngi ko doon xeex. bon c'était loolu c'était prévisible parce que au fil du temps parce que Sénégal noonu lañ réagiré malheureusement bon même si peut-être dans l'avenir histoire bi dinañu jàngal mm-hmm. euh, dañuy fexe ba à chaque fois bu ñu amee tendance baissière ñu tëj yenn service yi nga xam ne amul accueillirul accueilliratul malade bon loolu c'est c'est acceptable parce que il faut que fonds yi ñuy dugal mu am loo xam ne moo koy justifier mm-hmm. mais évidemment biñ koy def bàyyiwuñu woon xel que ne Sénégal amul benn dispositif boo xam ne jël na ko pour empêcher yeneen vague ñëw mm-hmm. donc dañu ni appelle en français la ñuy on mettait la charrue avant les mm. donc tout le temps dañ daan agir selon tendance baissière bi mais amul benn prévision boo xam ne sur le futur mënoon nañ mm. nag tëj yi évidemment fragilisé na euh, parce que yenn bu fekkee dañoo tëj yenn centres yi centres yi nga xam ne ñoom ñooy des ñoom ñooy encombré mm. donc d'où la surcharge de plus de euh, si côté travail bi surcharge de plus si côté manque de moyens et donc loolu moom daf doon gàllankoor évidemment la ci patient Covid 19 yi. Mm-hmm. ni tëj bi nga xamante ne dañ ko doon tëj euh, nekk na stratégie boo xamante ne c'est pas tout le temps salutaire dañuy des ci li nga xamante ne moom moo di gestion bu soxal euh, c'était ba léegi wax ngeen ne am na amal amal nañ leen li ñuy duppee ay prime de motivation ba ñenn ñi sax jàpp ne euh, dafay xawa a nduroog lu ñuy duppee manque de respect lu tax ngeen wax ne loolu dafa nduroog manque de respect. bon déjà suñ interroger contexte bi dafa am foo xam ne fa lañ jógee mooy wax naa ko léegi léegi sacrifice yu bari bon euh, waxuñu ne nag ne secteur bi ñu nekk ñun rek ñoom ñoo ñun def sacrifice bari woon nañ Sénégalais yëpp de façon générale dañoo mobiliser woon mais quand même sur le terrain yaakaar naa ñun on faisait partie de ceux le plus présents. Mm-hmm. léegi bu ñu toogee ba nga xam ne président de la république instruire na à ce ñu fay ñu prime boo xam ne c'est pas quand même extraordinaire cent cinquante mille francs pour agent bu nekk à la fin de chaque mois loolu quand même état bu Sénégal mën na ko supporter d'autant plus que dañuy gis tous les jours ñu yàq ci ay milliards ci loo xam ne amul benn njëriñ mm-hmm. donc manque de respect la lu tax parce que ginnaaw bi ñu yoree yoreel nit sax amul problème mais nag bu fekkee da nga ko yoreel dafa am benn taxawaay boo xam ne da nga koy taxawee surtout bu fekkee nit kooku daf la jiitu ci ay sacrifice da koy fexe woo wax ko exactement lan moo tardel li nga ko li nga ko waroon a jox lu tax joxoo ko ko mënoo ko toog di ko seetaan ba kooku dem ba nga xam ne contrat yi nga ko signé loon ay weer moo ci des pour mu jeex waxoo ko exactement nga koy traîner ay mois waxoo ko kañ nga koy fay waxoo ko nan ko koy fayee et cetera loolu dañu jàpp ne c'est manque égard à tout ce qui s'est passé comme a sacrifice mm-hmm. bu ñu tollee foofu ci côté finance kese kese nga xam ne beneen accompagnement lañ doon xaar mais ñuy tardé ci côté finance mooy Sénégal dañu am problème mm-hmm. donc loolu ñun lañ jàpp ne manque de respect notoire la mm-hmm. de la part du gouvernement du Sénégal de façon générale mais à travers son ministère de la santé de l'action sociale euh, Elimane ndax loolu aussi tamit mënuñu jàpp ne am ngeen ci part de responsabilité tollool euh, jàpp cinq jàpp huit mois ndax euh, mois yooyu tamit ngeen bàyyi di bàyyi tey jii le fait que mu xaw a bëri ndax yéen tamit amu leen ci benn part de responsabilité ndax durée bi tamit amaana ma léegi mu def un an ci ñenn ñi. c'est à dire que bon peut-être que ñun on on s'est laissé par ce désir toujours de bien faire. Mm-hmm. parce que ñun dañ jàppoon ne comme ay de santé lañ suñu place nekkul nekkul vraiment ci ci ci ci cadre contestation ñun dañu war a nekk ci. chevet yu malade yi dañoo war a nekk ci fexe nan la ñuy def xalaatee luy luy seen bienfait mais waruñu mun mënuñu xalaat ne dafa war dañoo waroon a nekk ci contestation. Mm-hmm. mais nag li nga xam ne moo justifier contexte contestation bi mooy comme li ma la wax dañu dem ba nga xam ne contrat yi ñu ngi waaj a jeex. donc contrat yi déjà yi nga xam ne moom lañ si ministère signal li ñu doon dégg ci système bu résilient agent de santé ay jàmbaar la ñëpp ñooñu agent de santé yëpp de façon générale excepté quelques-uns amul woon kenn ku ci am un contrat digne de son nom c'est de prestation qu'ils avaient tous signés mm. loolu leen yóbboon ci CTI e. loolu rek déjà manque de respect la donc ñooñu bu nee seen contrat yi di waaj a jeex kenn waxu leen dara il faut que ñu jóg donc c'est vrai la part de responsabilité bi ñuy incombé ñun suñu suñu xol moom moo ñu ko yóbbee suñ suñu suñu désir de bien moo ñu ko yóbbee mais malheureusement ñi ñu jàkkaar lool ñoom amuñ xalaat boobu parce que waroon nañ rien que pour ça xalaat ne ñi waruñu sax permettre ñuy dem dans la rue parce que muña ku la muñal cinq mois huit mois kooku vraiment amoon na envie bàyyi la ba nga xam ne di nga di nga am suffisamment de fonds pour pour pour restituer ko euh, dans ses droits mais gis nañ ñàkkuñu ko parce que ñu ngi koy def ailleurs te ñun dañuy jàpp ne ñun ñoo ko gën a yeeyoo loolu moom moo tax ñu jóg mhm. euh, bu même bu fekkee ne waroon nañ ko def avant comme ni ko waxee mhm. Euh, justement ci mouvement de contestation yooyu la ñuy des def ngeen fi conférence de presse organiser ngeen fi ay sitting ginnaaw gi sax euh, ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum wérgu yaram amaana ma dajale nañ leen seen collectif bi nga xam ne am na infirmier am na médecin brancardier ak ambulancier tey jooju groupe bi ngeen di def seen mouvement d'humeur yi xam lépp lu ma fi lim conférence de presse sitting lan la suñu autorité yi vraiment teg seen loxo yi nga ne après xel mun na dal que di ngeen mën a rentrer dans vos fonds comme il se doit. sincèrement dara bon parce que comme li nga wax après activité yi ñu def bon on a eu une rencontre avec euh, le ministère de la santé par l'intermédiaire de son DRH. madame Awa Fall Diagne. Mhm. donc recevoir nañu mu nekk quand même il faut le dire comme man j'ai eu à diir dire en face wax naa ko ne su fekkoon ne suñu administration bi nit ñu mel ni moom moo ñoo fa nekkoon Sénégal fi ñu bëgg mu dem dina fa dem parce que nit ku dal la donc dalal nañu ci ay bureau expliquer mais explication bi mu joxee ñun xaaroon nañ loolu donc lim ñu wax mooy ministère dafa manqué ay fonds il faut que ñu dem. xaar ba but ba ñu voté budget 2022 bi pour ñu restituer ñu sunu pour ñu pour ñu restituer ñu dans nos droits mm-hmm. loolu ñun dañ ko wax clairement que accepté wuñu ko léegi nag am na benn jeu boo xam ne moom mu ngi koy def parce que ñun nag loolu vraiment ñun déception lañ ci am parce que. ban mooy dafa daf dafay commencé di fay deux mois na ko daf ne yenn yenn services yi ñi nga ne dañ leen yoreel mënuñu leen fay d'un ñu jëlee sami par mois bu ñu leen ko naree fay loolu ñu mën mooy fay deux mois ñun nag paiement graduel boobu dañ ko doon bañ maintenant deux mois yi dañu gis ne de façon aléatoire ci loo xam ne amul benn base légale. hôpital dañu jékki-jékki di ko fay yenn hôpitaux yenn agent yi mhm. boo jëlee Fann commencé nañ jël yenn médecins yi ak infirmiers yi di leen fay bàyyi ginnaaw euh, brancardier yi bàyyi ambulancier yi bàyyi sage-femme yi bàyyi ñeneen ñi mhm. boo jëlee hôpital principal tamit commencé nañ ko mais man li ma jaaxal mooy sayteer bi gën a mag dalal jàmm la foofu fayuñ fa dara donc ñu gis ne c'est pas un jeu vraiment qui est franc mm-hmm. donc bu fekkee ne ñoom ñu ngi instruire loolu ça veut dire que quelque part ñu ngi bëgg installer un flou boo xam ne dafay fexe ba population yi yaakaar ne fay nañ alors que ñoom fay ñuy wax population sénégalaise bi que fi ñu tolloon fa la toll ba léegi depuis bi ñu commencé ba léegi les négociations fi ñu taxaw lañ taxaw mm-hmm. mépris boobu doy waar lañ ci àndal comme si on était des gens yoo xam ne mm-hmm. la santé fa la ñu toll jox ko donc aw madame Awa Fall Diagne li mu wax mooy li mu munul bind munul def dara moom parole am la mën a joxe. maintenant nag Sénégal moom ñun xam nañ ne sëñ bi autorité yi ñu am nekkuñu ay ñoo xam ne dañuy sàmm seen kàddu. Mm. même su fekkee am nañ njort bu rafet ci moom waaye ni muy doxalee woon nañu ne am nañu raison ci kawam bu ñu bañee paiement boobu nga xam ne moom la ñu bëggoon a ñu koy wax nag ne ko na arrêté paiement boobu. Mm. donc nañu fexe ba nga xam ne dinañ restituer nit ñi parce que à ah, on à sept jours. de la fin du contrat de la plupart des agents yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir CTE yi mm-hmm. nañu fexe lillaahi wa rasuli ñooñu bu fekkee dañ leen di dàq nañu fexe ba nga xam ne dañ leen restituer dans leur fonds nga xam ne dinañu am loo xam ne dinañ ci départ pour wuti leneen mm-hmm. parce que ñoom waxuñu lenn ci mbirum contrat yi waxuñu lenn ci mbirum motivation yi agent yi mënuñ leen dàqee noonu mënuñ leen bàyyi noonu ñibbi seen kër yi. dafa mm-hmm. ñaaw. Mm-hmm. Euh, dafa ñaaw mais aussi am na loo wax euh, am na loo wax ci sa biir wax euh, bu CTE bu Fann ak bu principal commencé nañ leen jox seen i mais bi nga xamante ne moo gën a mag mu nekk bu dalal jàmm xam naa fu mu nekk nii percevoir gu leen jotagu leen li nga xamante ne warloo nañ ko ak yéen mais foofu aussi tamit yaa ngi wax jeu flou mais est-ce que tamit euh, cacophonie bi émané wul ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo constitué CTI yi ndax am ngeen benn langage de vérité bu ngeen di waxante seen biir parce que nii bu ngeen continuer di ngeen dem def lu ñuy wax vous allez partir en rond dispersé aussi. waaw mais bon c'est-à-dire que ñun nekkuñu ci ay calcul c'est-à-dire ñun benn benn groupe lañ déjà ñun wax nañ ne on n'est pas des syndicalistes wax nañ wax nañu clairement qu'on n'est pas dans la politique ñun ay agent lañ yoo xam ne dañ daan liggéey. dañu continuer di liggéey d'ailleurs ci Covid 19 ñu yoreel ñu xaalis ñu koy laaj cest à jeu bi nga xam ne moom la ministère di imposer ñun jeu boobu mënuñ ci dugg. Mm-hmm. li ñu warloo ak ministère mooy xaalis bi mu ñu yoreel nañu ko fay. maintenant nag kan moo nan la koy fayee ñun wax nañ ko ko mooy intégralité yi la wax nañ ne bëgguñu mu fay ñu graduellement maintenant jeu boobu nga xam ne moom lay def ñun dañu jàpp de moom foofu la toll. waaye amul lenn loo xam ne dina ko perturber ci ñun la preuve tey la gën a déterminé donc mouvement bi nga xam ne moom moo àndoon def ay sit-in def ay point de presse même mouvement bi ñoom même ci ñu ñi nga xam ne jot nañu deux mois yi ñuy continuer di rejoindre les pour dire que li ñu soxla réellement du paiement graduel boobu li ñu soxla mooy ñu fayandoo ñëpp. sans distinction particulière parce que quand même Covid bi médecins yi c'est ñu ngi fa woon infirmiers yi ñu ngi fa woon mais ñi gën a am importance mooy yeneen agents yi nga xam ne ñooy hygiénistes yi ñoom ñooy tax hôpitaux yi di set ñoom ñooy tax chambre yi malade di set mooy ambulanciers yi nga xam ne ñooy yóbbu malade yi d'un service à un autre brancardiers xam ne ñoom ñoo daan ramener décès des Covid yi nga xam ne c'est des c'était des décès à risque yoo xam ne ñi leen di transporter ils étaient dans un risque extraordinaire ñooñu ñëpp ci la ñu bokk donc mm-hmm. tant que fay ñu ñëpp de restituer woon l'intégralité de nos continuer di xeex parce que li ñu ñor bu mm-hmm. préserver ñun suñu intérêt matériel mais li ñu ñor mooy préserver suñu dignité de façon générale mm-hmm. justement dañuy des ci foofu loonu ginnaaw bi nga xamante ne def ngeen seen sitting wala seen conférence de presse bu mujj 24 heures après dafa am benn circulaire bu bu bu génn ah. suñu autorités yi wax ne dañuy suspendre lépp lu jëm ci wàllum prime de motivation jagleel ko liggéeykat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci centre de traitement des épidémies mu mel ni Euh, xawul leer trop trop ndax dañ koy suspendre mooy que ne liñ leen joteloon amel duñ leen ko amel wala buñ leen xasee ba fay maanaam post yooyu noonu si si c'est effacé de manière définitive ñu bëggoon rek nga indi ñu ci ay précision ndax xaw na flou ci bëtu askan wi aussi ci nopp askan wi. arrêt motivation yi bon dañu comme ni nga ko waxee ñun dañu xëy gis benn lettre circulaire bon mu jaaxal ñu nag parce que président de la république quand moom moo waxoon même si en administration la parole quand amul yenn valeur yi mais on parle quand même du président de la république mm. moom bu waxee yaakaar naa valeur am valeur parole boobu bokkul ak beneen sénégalais bu waxee donc moom moo wax ne képp kuy liggéey ci covid 19 dafay motivation à la fin de chaque mois loolu président moo ko wax ministère yi dañuy coordonner activité président de la république activité gouvernement bi donc président mënul wax un ministre di génnee communiqué di di di ko dédire loolu Sénégal rek la donc communiqué bi ñu gis nii lañ ko gisee bon loolu nag tollaguñ ci parce que ñoom communiqué bi. Mhm. concerné day euh, concerné wul euh, fekk na yorel nañu xaalis ba pare. c'est-à-dire que ñoom bi ñuy génnee communiqué bi on était déjà au mois de décembre ñun on a travaillé jusqu'au mois de novembre donc ils nous doivent de l'argent jusqu'au mois de novembre au moins ça c'est clair maintenant bu ñu demee ba nga xam ne nii nag restitué nañ ñu intégralement suñu fonds yi boobaa dinañu débattre ak ñoom ci lu tax nit ñi di liggéey ci ay risques te duñu am prime de risque. Mhm. sax xalaat. Mhm. te xam naa ne wax la boo xam ne dañ koy wax pour au moins peut-être dissuader ñi nga xam ne ñu ngi ci Covid bi wala ñu ngi waaj a ñëw ci Covid bi yaakaaroon ay motivation ñu bëgg leen dissuader du comme quoi motivation dootul amati et cetera mais ñun li ñu gëm mooy bu fekkee naratul am président de la république bi ko waxoon moom mooy taxawaat wax ne moo ko waxoon waxet mais du pré du moom mooy taxaw di naan motivation yi dañ koy arrêté il n'a pas cette cette prérogative là président de la république moo nekkoo au-dessus de tout le monde. Mm-hmm. Euh, bu ngeen déggee nouvelle boobu lan la lan la leen def certainement am na benn lu ñuy waxee douche froide wala naka ngeen ko jàngatee. c'est ça bon c'est vrai parce que pour man loolu dafa élémentaire en fait yaa ko Sénégal soo xoolee dëkk yu mel ni ay France ay yeneen dëkk yi même Tchad bi jege ñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi motiver seen agent yi à hauteur un million Tchad. Mm-hmm. ñi nga xam ne dañoo contracté Covid 19 kese kese Tchad mu ngi leen jox agent bu nekk 500000 francs. Mhm. Sénégal on parle de 150.000 mais on pense que cette somme là est exorbitante c'est extraordinaire c'est-à-dire que man dama jàpp ne population wala boog ministère boobu dañu mesurer à justice le sacrifice bi nga xam ne moom lañuy def parce que c'est énorme te nag li gën a doy mooy ñoom ñii yëpp di wax ku ci nekk ñëw na ci biir CTE ñu jël la ensage te ku ci nekk bi nga ñëwee gis nga ne musuñu tëdd nelaw. ba ñoom dañ daan sax jaaxle malade yi loolu mm-hmm. population sénégalaise bi yëpp mën na ko seede des fois malade yi dañu daan laaj mais yéen kañ ngeen di nelaw parce que ñoom dañ daan nelaw sax ñu yee mm-hmm. ne ñoo nekk ci gouvernement bi tey mënuñu woon voyager donc te buñ ñu ñun lañ daan appréhender su apprécier suñuy effort ba di leneen tey buñ taxee ba nga xam ne ñoom yegg si nañ ba gis tendance bi ba nga xam ne jël nañ leen en charge ba ñu wér ñu waxu arrêté prime bi loolu dafay am désolation sentiment de désolation boobu ñun dafa animer agent bu nekk mm-hmm. te démotivation boobu malheureusement conséquence bi mooy population baadoole bi moom moo koy subir parce que mm-hmm. ñoom peut-être mën nañu dem faju ji feneen mais ñun mais ñun ñi nga xam ne ñun suñu yaayeeg suñu papa ci ñun la ñuy fajusee ñun buñ ñu dém loolu dafay am conséquence bu extraordinaire ci faj bi ñu faj parce que dootuñ ko defate avec le cœur mm-hmm. euh, justement balaa ñuy tëj euh, fànn woowu Covid mu ngi fi mars ba tey ji tey ñu doon defal benn bilan par rapport ak ni ko gérer moo xam ci structure société yi lan nga ñu ci mën a wax euh, de manière plus large aussi. bon dans la gestion je pense que globalement am na euh, am na une réussite à suffisance quoi parce que. C'est vrai que Covid bi bàyyi na ay dégâts mais quand même quand compare ce qui s'est passé dans les autres pays ak Sénégal mën nañu jaakaar ne eh, am na boo am na boo benn benn pari boo xam ne réussir nañ ko bon loolu nag may wax ne du méritu benn benn gouvernement du méritu du méritu benn ministre loolu ce sont les agents de santé yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon sur le terrain ñoom ñoo sacrifié wu lépp pour fexe ba nga xam ne dinañ ci am ndam bon globalement bilan bi. on peut on peut dire que Sénégal am na benn avantage mooy fexe na ba nga xam ne nii créé nañ rompre nañ en tout cas ci troisième vague bi chaîne de contamination ba toll nañ tolloon ci ay zéro cas. Mm-hmm. mais bilan boobu dañ koy nuancer parce que au même moment ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi ñuy yaxaar ci ñoom ay décision yoo xam ne yu forte la dañuy gis ne dañuy nekk tout le temps en contradiction te loolu dafay indi. relâchement ci population yi. moo tax ma ne bilan bi dañ koy nuancer parce que c'est vrai que am nañ tendance baissière mais par rapport ak par rapport ak li nga xam ne moom mooy ñëw amuñu ci certitude li ñu mën a wax sur le présent mooy réussir nañ euh, comment on appelle rompre la chaîne de transmission au Sénégal ci troisième vague bi mais attendons avant de dire quoi que ce soit sur sur des perspectives mm-hmm. d'autant plus que Sénégal amul benn benn benn mbir boo xam ne teg na ko buy empêcher par exemple la venue d'une nouvelle vague mm-hmm. euh, amul lu mu teg luy empêcher la venue d'une nouvelle vague yow yaa ko wax ah, na benn jour boo xamante ne je pense que si seen communication bu ñu defee zéro cas pratiquement seconde yi nga xamante ne moom moo suivre point Covid bi Sénégal ñëpp ko partagé mais démb démb démb démb rek euh, ñu ngi yegg si ci vingt sept cas euh, au moment où aussi ñu ngi wax présence Omicron bi nga xamante ne certainement virulence moo gën a extraordinaire loolu aussi ndax amul euh, benn benn incohérence tout cela ñu jël ci ci lépp lu jëm ci wàllum CTE yi aussi boobu tamit lan nga ñu ci mën a wax. waaw mais bon y' a y' a quand même des CTE qui continuent de fonctionner parce que Dalal Jàmm quand seen CTE bi mu ngi am accueillir ay malades jusqu'à présent. Mm-hmm. bon je crois que Fann tamit seen seen seen CTE bi mu ngi accueillir. Mm-hmm. mais comme ni ma waxee sànq ñoom seen politique loolu la quoi c'est-à-dire que ñoom la politique du show la ñuy def dafay dafay dafay dafay tàng ñu. ñu ñu réagir après mu sedd ñu relâché wu loolu nag moom c'est-à-dire que dañuy won ne système sanitaire bi nga xam ne moom moo nekk Sénégal nekkul système boo xam ne permettre na bépp agent bépp nit bu ko soxla faju sans problème mm. donc loolu jàngat la war a doon pour man dañu war continuer dans les prévisions de laisser les centres de traitement ouverts continuer au moins di xalaat naka la ñuy def ba agent yi nga xam ne ils sont déjà formés parce que ñoom ils se sont auto formés dañuy ñëw rek ñu intégrer leen ci ci ci ci ci prise en charge épidémie donc ñooñu am nañu expérience ba pare naka la ñuy def pour maintenir leen ba nga xam ne ëllëg bu ñu amaatee beneen vague. Euh, li ce qui ce qui ce qui n'est pas du tout à exclure comme ni nga ko waxee léegi au vu des cas qui montent. Mm-hmm. ñu fexe ba nga xam ne dinañ am. une une dextérité dans la réponse bi comme comme ñu bañ ñu bañ a accuser retard bi nga xam ne dañ ko daan accuser muy kii coûter la vie quand même de beaucoup mm-hmm. ci ci ci ci Covid boobu noonu donc nañu fexe ba nga xam ne CTE yi tëj ñu renforcer leen ñu commencé waat. indiwaat matériel bi indiwaat ressources humaines bi toog xaar. Mhm. parce que loolu moom mooy permettre ëllëg bu amee lu déclenché wu du ñu toog di wax naan ay place amul ay personnel bi doyul et cetera donc nañu arrêté 31 décembre bii di ñëw bu ñu bu seen xel dem benn yoon ci arrêté contrat wu agent yooyu. parce que ñëpp xam nañ ne le système sanitaire a un déficit extraordinaire de personnel. Mm-hmm. bu ñu jàpp ne ñooñu comme amatuñu malade nañ dañoo war a rompre seen contrat yi au contraire ñooñu ay héros lañ ay martyrs lañ nañu fexe nu ñu leen intégrer pourquoi pas dans la fonction publique parce qu'ils ont montré suffisamment de preuves au lieu ñuy xalaat ci naka la def pour seen contrat parce que peut-être am na ay mouvement d'humeur yu jóg wala dara. Mm-hmm. donc xam ne li leen dëgg moom mooy intérêt sénégalais yi te intérêt mooy agent yu am expérience ñu continuer leen bàyyi leen fa pour que population bi di soulager wu de façon générale. Mm-hmm. d' accord euh, mbokku auditeurs yi ma fàttali ne yéen ngi déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Elimane Fall Elimane Fall nekk président euh, bu collectif du centre des épidémies du centre de traitement des épidémies ñu gën leen xam ci CTE waaye nag mu am beneen casquette ndax Elimane nekk na réanimateur foofu ca hôpital euh, Dalal Jàmm léegi nag ñu daal di dugg ci li nga xamante ni moom moo di spécialité nekk réanimateur Elimane ñu bëggoon rek nga wax ñu dañuy dégg réanimateur réanimateur mais laata nit ki di nekk réanimateur fan lay jaar ak ban formation la war a def. bon déjà ñuy ñuy ñuy def rectificatif bi mooy ñun bon on on nous sommes nous sommes dans un service de réanimation. Mm-hmm. mais réanimateur bi mooy ki nga xam ne il est spécialiste c'est-à-dire c'est d'abord un médecin. Mm-hmm. nest boo xam ne dafa def euh, sept ans d'études. Mm-hmm. après soutenir thèse am nekk un docteur def ce qu'on appelle la spécialisation soit par concours wala muy lu ñu tuddee interne wala mu fay xaalis lu ñuy wax DS. donc après sept ans d'études dañuy yokkaat yeneen cinq ans yoo xam ne moom la ñuy def spécialisation yi pour def le choix d'être un médecin réanimateur anesthésiste réanimateur. Mhm. donc euh, loolu la mais au-delà ñooñu dafa am ñoo xam ne ñoom ñooy le personnel paramédical ñooñu aussi dañuy normalement dans un état normal dañuy def formation pour intervenir dans les services de réanimation parce que quand même c'est un service particulier mhm. donc ci ñooñu am na ci infirmiers yi am na ci aussi ñoom la ñuy wax aide soignants yi mais am na ci ñoo xam ne ñoom la ñuy wax mhm. donc ñooñu ñëpp ku ci nekk dafa am war am formation boo xam ne c'est spécifique à la à la réanimation mhm. mais globe bref pour faire bref pour être réanimateur c'est le cursus mooy da ngay def étude sept ans en médecine ba pare. Mhm. boo paree nga spécialisé wu ci domaine nu anesthésie ak réanimation. Mhm. Euh, justement ci ñooñu ñi nga xamante ne ñoom nga lim léegi ci ban moment la ñuy ñëwee ci contexte médical. bon ci ban moment ñoom en fait réanimation de façon générale mooy daj dëpp santé mooy ku ñuy yóbbu réa réa ki nga xam ne kaayam vraiment eh, yéemeen doy na waar ba nga xam dundam mu ngi en danger kooku la ñuy yóbbu ci service de réanimation maintenant kooku bu ñu koy yóbboo foofu li ñuy xaar mooy ce qu'on appelle prise en charge pluridisciplinaire mooy cardiologue bi par exemple bu fekkoon moo ko daan faj moom ci këram lay intervenir. Mm-hmm. mais bu fekkee daf faj ba benn moment mu gis ne lii jéggi na dayoo peut am na yeneen attente yoo xam ne dafa romb attente cardiaque yi il faut que mu indi ko réa bu ñëwee. réanimateur bi moom objectif am mooy naka lay def ba nga xam ne dina maintenir nit kooku en vie. Mm-hmm. mais en même temps euh, maintenir ko en vie gagner ce qu'on la suppléance en temps permettre traitement bi nga xam ne moom lañ koy defal mu mën a a def effet sans pour autant mu perdre la vie. c'est mm. un peu flou mais loolu mooy objectif réanimation mooy dafa am benn bénéfice boo xam ne mm. mm-hmm. traitement symptomatique comme ni nga xam ne noonu la ko yeneen service di defee mais comme traitement symptomatique bi ça prend du temps pour faire effet munoo toog yow di xaar traitement boobu def effet léegi nag da créer ce qu'on appelle la suppléance d'organe ne nit ki dafa am par exemple ay un déficit pulmonaire daf poumon yi dañoo dañoo dañu dañu abîmé wu au lieu ngay xaar poumon yi reprendre seen activité da ngay fexe indi lu suppléer activité poumon yooyu mm. mooy da nga koy mettre sous ventilation mm. moom mooy doxal poumon yooyu nga ravitailler nit ki suffisamment en oxygène bu fekkee par exemple dafa am atteinte rénale rein ba fonction yi perdre na ko da nga koy dialyser mm-hmm. bu fekkee dafa am ay atteinte cardiaque da nga koy mettre sous traitement à base d'amine mm-hmm. donc loolu moom mooy li nga xam ne moom la ñuy def inter moom mooy inter moom moo am lu particulier ci biir service de service de réanimation mm-hmm. donc ku fay dugg entre la vie et la mort mais li ñuy xaar tout le temps mooy am suffisamment de bénéfice pour que buy génn mu nekk en vie. Mhm. Euh, justement pour que buy génn mu nekk en mais li nga wax fi yëpp ndax dinañ farataal di gis ñi nga xamante ni dañuy nekk ci boobu les services ñu génn si parce que le plus souvent wala ci conception population bi la buñ la nee sa malade dafa nekk réanimation rek automatiquement da tu es complètement abattu comme on a l'habitude de de bon tur bi moo di Sénégal sauvetage la ñuy wax bu fekkee yaa ngi tutéa dañ naan sauvetage la ñuy woowee réanimation mm-hmm. mais c'est vrai mais quand même y a des loolu mooy def charme d'ailleurs service bi mm-hmm. euh, des fois tu rencontres yoo xam ne kenn amul woon ci ñoom yaakaar euh, maintenant buñ la waxee ne kii fii la jaar pour pour pour delluwaat ci ay sagoom da nga naan c'est pas c'est pas possible donc mm-hmm. loolu moom de bien entendu nit ñi ay nit ñu ngi fay jaar di succomber malheureusement mais la plupart de ceux qui viennent dans les services de réanimation s'en sortent quand même vivants mm-hmm. et en très bonne forme aussi mm-hmm. donc loolu loolu population yi c'est dans le dans le conception du du, du service mais en réalité réanimation lourd na mais des fois sax di nga indi malade réa par précaution di nga ko fa indi ma du doon malade a par exemple ci cadre si gestion yu Covid 19 bi. dañ daan am ay femmes enceintes yoo xam ne dañuy am c'est des grossesses sur Covid. donc ñooñu mën nañu mën nañu nekk am ay désaturation à tout moment donc pour nga pour nga anticiper ci loolu da leen di indi installer leen ci service de réanimation bi mais par précaution. Mm-hmm. maintenant bu fekkee ne gaañ bu fekkee ne am nga suffisamment de garantie que ne atteinte yi sévère au point que nit ki mën na mën maanaam résultat mën na fatal ci moom nga delloo ko ci service d'accueil bi nga xam ne moom moo tudd moom la ñu tuddee les CT. Mm-hmm. mais eh, pour dire euh, que comment on appelle réa e bénéfice am na fa donc nit ñi ñu ngi ñëw di génn en vie comme nit ñi ñu ngi ñëw di décédé malheureusement. Mm comme dans tous les services de de de réanimation du monde. Mhm. Mhm. Euh, Elimane ndax précaution boobu moom mooy farataal ci suñu structure hospitalière yi bu ñu waxee diw dafa nekk réa rek bon dañu naan visite euh, interdite wala accès bi moom c'est dafa dafa am ñu ko jagleel ci proche yi famille yi. Ah. c'est vrai bon euh, normalement dans service de réanimation visite yi ñim concerné moom mooy famille yi ak proche mm-hmm. donc loolu dafay am quoi en temps normal mm-hmm. maintenant nag soo jëlee spécifiquement ci cadre covid 19 bi ñu bari ci ci ci maladie buñ compliquer waan dañuy ñëw reyaa donc maladie ay la boo xam ne c'est très contagieux mhm. contagieuse du moins mhm. donc mënoo permettre visite boobu mais naturellement dans les services de réanimation am na heure boo xam ne selon les services dañuy fixé wu pour que famille yi papa wala yaay wala jëkkër wala jabar ñëw nekk au chevet de son malade xool ko même su fekkee malade bi dafa nekk situation boo xam ne mënul wax wala comatale et cetera dañ koy xool au moins après seen xel dal ñu delluwaat donc les visites sont acceptées ci cadre Covid 19 bi spécifiquement. Mhm. foofu la ñu waxoon ñett parce que loolu c'est il y va quand même de la santé de ki nga xam ne moom mooy ñëw pour pour seet bi. Mhm. mais globalement dans les services de réanimation les visites sont permises. Mhm. boo ñëwee tey réanimation dalal jàmm les visites c'est à partir de 18 heures famille bi da gis mu ñëw. ñu solal ko quand équipement parce et c'est mm, mm, impératif loolu loolu moom vraiment euh, am na. Mm. donc dañ lay solal kazak dañ lay solal charlotte dañ lay solal lépp masque euh, da xam nga dañ lay solal ay comme pour que nga bañ a fi nga xam ne foofu nga nekk comme c'est les soins intensifs. mais boo ñëwee donc y a toujours quelqu'un qui t'accompagne boo ñëwee mu wax sa malade bu fekkee il est conscient que telle personne moo ñëw seet si la nga taxaw ci verre yi. des fois tu parles mu dégg la tontu la donc loolu am na quoi maintenant ci Covid spécifiquement moom malades yi mënuñu woon nekk en contact avec leur famille suñu yegsee réanimation loolu li ko expliquer contexte bi la. Mm-hmm. mais eh, Elimane yaa ngi wax ne am na benn tenue adéquate bi nga xamante ne moom la ñu war a sol laata ñuy def les visitants qui sont autorisés à des heures précises mais est-ce que euh, c'est toujours aussi le cas ci de manière de générale. non non c'est-à-dire ñun suñ pays suñ dëkk yi c'est-à-dire moo tax des fois problème boobu la ñuy am. problème bi du du du ki nga xam ne moo jiitu ci kaw ñu koy tuddee président de la République problème bi technicien yi la mm. réew mi bu fekkee dañoo bëgg mu defaru il faut que ku ci nekk la mu warloo ak boppam warloo ko ak population yi surtout surtout cadre public mu fexe di ko jëfee mm-hmm. léegi nag bu fekkee les moyens sont là def ko vraiment war am problème ñun suñu service réanimation dalal jàmm loolu moom bon c'est pas parce que foofu laa nekk mais gis naa ne ña nga xam ne ñoo fa jiite ñooñu ñu ngi fexe di veiller ci loolu te service bu nekk bon dew ma ci yeneen service yi mais principal spécifiquement am naa ay collègues yu fa nekk ñooñu loolu la ñu wax loolu moom moo fa am mm-hmm. donc yeneen service yi de réanimation yi nekk Sénégal euh, Fann ak et loolu moo fa am donc ñu ngi fexe ba di góorgóorlu ñu ci ñaaxaat tamit suñu agent yi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy def ñun ñoo ñun ñooy exercer loolu nañu fexe di ci di ci veiller bu ñu tayal bu ñu mus a tayal ci fexe ba nga xam ne équipement bi nga xam ne moom la accompagnant bi di di di di di sol ñu bañ ñu bañ a tayal benn yoon ci di ko ko solal pour que bu duggee au moins ñu continuer di garder intégrité sunu service nga xam ne du pol du am benn élément étranger boo xam ne dina dinañoo polier foofu. Mm-hmm. yàqal malade bi wala xañ ko dundam et cetera donc mm-hmm. loolu moom c'est une question personnelle. Mm-hmm. nit ki moom mooy fexe ba nga xam ne li mu warloo ak service am mu def ko ba nga xam ne moom la mat sëkk. maa ngi joxe anecdote rek démb rek barki démb benn sage-femme boo xam dafa jógee luga mm. dafa ñëw fekk ma sama service di dugg si. ma ne ko da ngay sol lii bi ma ko sollee ba pare daf ma xool dafa dugg service bi ne moom dafa mel ni dafa nekk ci service France yi parce que jaar na mhm. eh, tellement service ni mu gisee amul lenn luy traîner ci suuf lépp a ngi set quand dalal jàmm moom sur le sur plan là rien à dire quoi mhm. yeneen hôpital hôpitaux yi tamit pareil maintenant bi mu ñëwee il était elle était vraiment ébahi et elle a dit sans cacher ses mots nee vraiment li mu gis foofu moom dalal na xelam te gënal na ko sax li mu gis ci hôpitaux privés yi mhm. pour dire que c'est possible su fekkee ñun techniciens yi nangu nañ coono bi nga xam ne moom lañ ci war a daj ñu daj ko ci mais toujours est-il que ñu xalaat ne papa ak yaay yi nga xam ne ñoom la ñu bàyyi suñ kër amuñu moyen ñoom la ñuy accueillir su fekkee ne yeneen papa yi ak yeneen yaay jàmbur la on les considère comme suñuy papa yaay ni ñu bëgg ñu ñu leen accueillir noonu la ñuy fexee ba nga xam ne noonu la ñuy noonu la ñuy accueillir yeneen papa yi donc globalement c'est ça donc nañu fexe ba nga xam ne dans nos dina ñu nekk ay références ku fa ñëw au moins au delà de ta maladie di nga sentir ne yaa ngi ci prise en charge boo xam ne vraiment moom la nit ku normal di di di war a am nga xam ne di nga intégralement sa dignité bi même su fekkee da ngay a sax au moins. Mm-hmm. Euh, Elimane dañuy des ci wàllu woowu ba léegi ah bu ñu jëlee peut-être ñi yëngatu ci wàllum cardiologie wala ñi yëngatu ci wàllum rajo léeg-léeg ñu ne la seen euh, plateau médical wala seen matériel di taxu ko demee noonu tey jii boo ñu doon defal rek benn petite évaluation bu soxal euh, réanimation naka la comp naka ci ci Sénégal. am na nombre suffisant déficit de matériel lan ñu ci mën a wax spécifiquement. bon déficit de matériel déficit de personne de de personnes de ressources humaines loolu c'est fra Sénégal la. Mhm. Sénégal on parle quand même d'un gap de plus de mille infirmiers. Mm. de plus de cinq cent sages-femmes. Mhm. donc euh, loolu c'est c'est c'est des c'est des faits. de mhm. plus de cinq cent médecins aussi. donc loolu moom ay fait la quoi maintenant nag kañ nga kañ la service bi vraiment di di aligné wu mooy bu fekkee respecté na norme OMS yi. Hmm. boo xoolee tey tey tey eh, hôpital man bi ma xam mooy Dalal Jàmm. les les les groupe paramédicaux ñi nga xam ne ñoom ñooy groupe de soins yi c'est des groupes de trois donc pour pour un service qui qui peut accueillir par exemple douze malades. donc bu douze malades yëpp réuniroo trois personnes ñoom ñoo leen di ce qui n'est pas du tout l'alignement de l'OMS donc pour dire qu'il y a un nombre qu'il y a un déficit de nombre mm-hmm. et le paradoxe sénégalais loolu la man je ne comprends pas c'est-à-dire que les gens sont là c'est des diplômés mais toujours on préfère di essayer di colmater bu ñu recruter nit ñi di leen bàyyi kenn comprendre si sauver le système de façon générale parce que c'est possible Sénégal quand même bon corps on a des agents yoo xam ne ils sont spectaculaires concours yi ñu ngi koy wone donc li ñu li des mooy volonté état bi ñu def recrutement massif des diplômés man j'insiste sur le terme diplômé parce que quand même man dama koy commencer di remarquer te wax naa ko DRH mm. dans nos service ñu ngi gis ay nit ñoo xam ne amuñu benn rapport en santé mais parce que ay mbokki euh, ki chef de service bi lañ mm-hmm. parce que ay nangam lañ ñu leen fay indi loolu mën na valable ci yeneen secteur mm-hmm. donte nit ko nangu parce que corruption c'est Mm-hmm. mais santé jigu ko mm-hmm. parce que santé quand même si ay doomu aadama la ñuy agir doomi aadama yooyu dañu soxla agissement boo xam ne mooy bi gën dañu soxla ay ñoo xam ne ñoom ñoo jàng li ñuy liñ liñ leen liñ leen a def ci ñoom ñooñu def ko ci ñoom mais mënuñu jël n'importe qui parce que ay mbokk lañ indi leen ci ay services yi pour ñuy def ay soins c'est pas possible voilà recrutement par complaisance loolu na mënul am ci santé mm-hmm. nañu fexe ba nga xam ne loolu nañ ko bannir et puis les diplômés d'état sont là su fekkee dafa nekk corps paramédical bi comme les médecins comme les yi xam ñooy gën a éloigné mm-hmm. mu ànd ak loo xam ne même bu ko jaree mu am politique de motivation boo xam ne dañ naan ku ci nekk ku nekk ci tel dëkk puisque dafa reculer nga am lii au moins ñu garder leen foofu parce que population yi soxla nañ ko donc globalement man loolu lay wax il y a un déficit notoire de personnel il y a un déficit de matériel. Mm -hmm. même si même si à Dalal Jamm et dans plusieurs hôpitaux au Sénégal. Mm -hmm. on est en train quand même de faire des efforts ça il faut le il faut le dire. Mm -hmm. d'accord il faut le dire mais damay rebondir ci fi nga xamante ne moom ngay waxee un tout petit peu recrutement yi nga xamante dañ koy farataal di def par complaisance ndax loolu aussi du xaw a favoriser wala. wala farataal lu ñuy duppee peut-être ay erreur médicale di nga ko wax ci kaw mais bëri na yoo xamante ne day am ci suuf ci suñu structure hospitalière yi di nga ko yóbbu au niveau de la justice parce que dañuy jàpp ne suñu dogal moo ko dogalee nii mais yenn saa yi aussi ndax lu ni mel aussi mënu ko favoriser même si ñenn ñi entre guillemets dañ koy xaw a refuter carrément. c'est vrai effectivement parce que conséquence bi malheureusement c'est ça des fois yow agent nit koo xam ne mu boo xam ne c'est tellement fatal que dafa coûter la vie à un de ses proches. Ah ah. je le vois keneen ku du ku nekk agent de santé comme man daf koy dégg. mais des des fois bu ñu expliquer scène bi c'est tellement bizarre que yow da nga naan lii sans hésiter. nan la mën a nan la mën a nekkee. Mm-hmm. wala bu fekkee nekk na rek da ngay xam ne lii ki ko def c'est pas un agent de santé. parce que mm-hmm. quand même la base en santé. Mm-hmm. donc am na yenn erreur yoo xam ne. ku ko def rek da ngay xam ni lii agent de santé nekkul moom moo ko def léegi nag Sénégal dañoo am tendance su képp koo xam ne sol na blouse nekkul médecin ñu tuddee ko infirmier des fois même ci yenn gox yi infirmier bi ñu tuddee ko médecin et loolu moom mooy peut-être la culture sanitaire au Sénégal mais li ko favoriser responsabilité bi njëkk. moom mooy gouvernement bu Sénégal à travers son ministère de la santé parce que ministère boobu la ñu gis mu jox autorisation d'ouvrir un cabinet à un individu qui na présent même pas un diplôme. Mm. donc loolu bu fekkee ne ministère mat na li ñu koy doyee il faut que mu veille ci loolu. Mm-hmm. xam na exactement comment ça se fait. Mm-hmm. parce que ñoom ñoom ñooy jox ñoom ñooy recruter nit ñi. Mm-hmm. na ñu arrêter les recrutements par complaisance ñi nga xam ne ñoom ñoo ko mérité jàngi parce que santé jàng bi dafa métti. Mm. jàng lillaahi nañ leen jël du intégrer leen ñi nga xam ne on a rien contre ñi nga xam ne vraiment bëgg nañ santé bi mais nañ dem def formation parce que jàng du wees mm-hmm. buñ defee formation ba nga xam ne nii nag am nañ seen diplôme bu boobaa par suñ amee chance am mag wala loolu seen chance la ñu dans les services ñu liggéey mais toujours est-il qu'à la base dañu war a am un diplôme boo xam ne moom mooy attester au moins mooy justifier seen présence parce que quand même il y va de la responsabilité Mm-hmm. parce que erreur bu mu mënti def man daf may incombé parce que man agent la donc erreur yi muy def man duma ko camoufler ñàkk ko camoufler du du du firndeel ne dama soxor mm-hmm. mais ñàkk ko camoufler message la ci ñi nga xam ne ñoo ko fa indi mm-hmm. te amul benn qualification di lor askan wi te bu doon seen papa ak seen yaay ñoo fa tëdd duñ nangu kooku defal leen soin. Mm-hmm. donc nañu fexe ba di considérer malade yi au même titre que ñun suñuy wayjur parce que en réalité loolu la ku ci bëggul say papa wala sa yaay ñu ku ku am xamul dara ci santé di ko faj fexeel ba yow bi nga xam ne xamoo dara santé buñ la indee nga am honnêteté sax delloo loolu xam ne yow fii du sa place parce que ka même dëkk bi liggéey yi bari nañ yaatu nañ spécifiquement santé ku ko jàngul mënu ko tari c'est impossible. Mm-hmm. Euh, wala. c'est ça c'est un c'est l'échec de tout un système malheureusement wax ko sànq nee naa jig na yeneen yeneen yeneen service yeneen yeneen service yi mais jig na boobu sax c'est entre guillemets warul am. Mm. warul am parce que man pour man quintessence doomu aadama mooy fexe ba nga xam ne liñ lay dënk nga jiital ci ab njub parce que jeexitali dundu doomu aadama bi mooy ragal yàlla. parce que loo fi gis ci àdduna dina jeex donc dafa dañuy am ay comptes yoo xam ne dañ koy rendre il faut que ñu arrêté loolu suñu dëkk yi déjà ils sont dañ dañ leen menacé à tous les niveaux pauvreté c'est des pays pauvres yoo xam ne amuñu benn moyen bu fekkee ci loolu dañ ci dolli ay corruption wala ci ay recrutement par complaisance et loolu échec gu système de façon général la na gars yi jël seeni responsabilité ñi nga xam ne ñoom leen teg ci kaw ñu xam ne teg boobu du caa ñoom dañu gën a jàng nit ñi wala dañoo gën a méritant wala dara mm. yàlla moo dogal ci ñoom ñu fekk nekk foo xam ne foofu la ñuy joxee ay décision ngelawaay nañu fexe ba décision yi ñuy rendre nay nekk décision yoo xam ne dinañ am ay au moins ay critères yoo xam ne objectif la mm-hmm. mais nit koo xam ne amul dara ci ci ci bagage intellé bagage santé nga koy indi pour mu exercer parce que rek sa mbokk la loolu dafa ñaaw mm-hmm. échec la bien entendu te échec la boo xam ne dañ ko war a parce que bu persister quand même dinañu arriver ci ay encore des erreurs médicales qui vont encore la vie à des milliers de Sénégalais malheureusement une population boo xam ne amul suffisamment d'information ci naka lay def pour rétablir boppam dans les dans ses su fekkee erreur noonu am na. Mm-hmm. may lancer appel nag agent de santé yi. Mm-hmm. com recrutement par complaisant fu ñu ko gis nañ ko dénoncer tu es tu es tu es intéressé par c'est ça c'est ça dire que nañu fexe ba nga xam ne nañu valorisé ñoom seen métier yi brancardier bi na gëm boppam ci li muy def ambulancier bi et cetera à chacun son son domaine de compétence mm-hmm. nañu fexe ba ki nga xam ne du brancardier bu naree doon brancardier brancardier bi na taxaw ne ko man dama jàngi demal nga jàngi boo ko bëggee doon donc loolu du bon du soxor du dara mais loolu dafay dafay permettre ñu am un système boo xam ne dina performant te loolu bu bu amee ñun ñi nga xam ne ñooy population encore une fois baadoole yi ñun ñoo koy yëg parce que ñi nga xam ne ñoo ñu jiite malheureusement ñooñu du ñu fajoo ci seen hôpitaux yi ñun ñi nga xam ne ñooy pauvre ñoo fay fajoo donc bu ñu fexee ba nga xam ne nañ rafetal sunu sunu sunu sunu sunu euh, personnel bi ñu ñu ñu recruter leen uniquement sur la base de mérite dina dinañu permettre ñu am un service boo xam ne dañ koy rendre population mu nekk lu extraordinaire euh, bénéfice boo xam ne dina nekk ci population bi yëpp de façon générale. Mm-hmm. mu mel ni échec bi yemal foofu ndax sànq yaa ngi koy wax Sénégal dañu am culture ku sol blouse rek ñu foog ne met docteur nga am na blouse blanche am na verte am na rose ba ci bleu sax am na mu mel ni aussi foofu tamit euh, la communication wala sensibilisation bi ci war. Euh, yeggulu ci nopp askan wi les sénégalais lambda boo ñëwee hôpital rek képp koo mën a dal ba yenn saa yi sax dañuy am problème orientation foofu aussi lan nga ñu ci mën a wax euh, lan a wax. ah bon boobu moom je crois que agent bi si boppam nit c'est Sénégal ñoom aussi dafa am loolu loolu dafa am ci ñoo xam ne. Mhm. toujours dañuy fexe di li ñu leen sant dañuy fexe mun nañ ko bañ a def sax. Mhm. mais ñoom toujours li ñuy bëgg a def mooy li ñu leen santul. Mhm. léegi nag comme ni ma ko waxee sànq. ku ci nekk ci ñun dañ la former pour benn secteur boo xam ne dafa spécifique. formation boobu yow yaa ci def choix. mais boo ci defee choix ça tout dire bu fekkee da nga def choix ci benn formation il faut que tu sois fier de ce que tu loolu mooy base sa formation sax d'ailleurs mu ngi mel ni yow nga ñu formé la pour nga nekk un journaliste ngay xëy suba parce que peut-être yaa ngi def émission ci santé rek tu te prends pour un agent de santé mm-hmm. donc yow sa à la base lañ la formé woon xanaa fier ci donc loolu c'est vrai population bi dañ leen koy nangul parce que quand même nit koo xam ne jàngul maîtriser yenn kii initié wuñ ko ci loolu. Mm-hmm. amul leen dans les autres pays ça se fait. Mm-hmm. dans les autres pays dañuy éduquer population yi ci naka la ñuy comporter par exemple dans les autres pays donc Sénégal ñun amuñ culture yooyu. Mm-hmm. maintenant nag mënuñu ko reprocher forcément population bi am na une grande part boo xam ne agent bi ci boppam moom moo koy dénigrer bu fekkee médecin nga buñ la sama bu fekkee infirmier pas femme technicien supérieur nga parce que quand la santé c'est quand bien organisé mm-hmm. nga wax ku ci nekk mu xam ne lii mooy domaine de compétence am yow mi nga xam ne nag yaa nekk infirmier nga bañ a def rôle médecin mm-hmm. médecin bi bañ def rôle professeur bi professeur bi moom mooy daj dëpp gi ainsi de suite mm-hmm. donc ku ci nekk bu fekkee ne mu ngi assurer son rôle propre de façon normale même population bi nekkee un fan nekkee entre guillemets fanatique munul munul am impact ci service bi nga xam ne moom lañ koy rendre. Mm. parce que nañ ko ko rendre comme ça se doit et puis erreur yi dinañ ko éviter également euh, au maximum. d'accord mm. euh, Elimane mu mel ni nag euh, débat bi intéressant na waxtaan wi am na solo mais daa mel ni luñ ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ca. Mm. bon maa ngi wax daal en tout cas euh, li nga xam ne moo sabab d'ailleurs ñëw bi de façon générale donte wax nañ ci yeneen point yoo xam ne c'est aussi intéressant mm-hmm. mooy xaalis bi nga xam ne ministère de la santé et de l'action sociale moo ko yoreel képp koo xam ne travailleur la ci centre de traitement des épidémies na ko ko fay mm-hmm. loolu mooy benn bu ko koy fay na ko ko fay intégralement dalal jàmm bi ñu yoreel huit mois nañ leen fay huit mois. Mm-hmm. fan bi ñu yoreel cinq ak principal nañ leen fay cinq mois sami national nañ leen fay seen i douze mois ainsi de suite nañu arrêté seen ces histoires de paiement graduel deux mois et cetera loolu mënatuñ ko nangu. Mm-hmm. loolu mooy benn ñaareel bi mooy ministère de la santé nañu fexe veiller ci contrat yi contrat yi ñu ngi jeex le 31 décembre agent yooyu pour man l'heure devait être. pour le président de la république di xalaat naka la leen di recevoir yi gërëm leen sant leen fexe ba nga xam ne da leen intégré ci fonction publique parce que ñooñu ils ont suffisamment de fait fait fait des yoo xam ne permettre na leen ñu rendre un service public donc nañu veillé ci loolu au lieu ñu leen di signaler contrat de prestation wala ñuy xalaat nañ leen wàññee parce que Covid bi wàññeeku ne et nañu garder agent yooyu pour la simple raison que l'hôpital manque de personnel et ce manque est notoire ce manque services mais bi ñu demee ci services yooyu dafa mel ni ils ont indi ils sont indispensables à ces services ça veut dire tout simplement qu'il y a crucial de personnel donc loolu ressources humaines ministère de la santé moom moo ko war a gérer xam na ko na fexe maintenir nit ñooñu noonu ci seen i service wala mu fexe fexe indiwaat leen ci CTE yi ba nga xam ne tey à l'heure de la quatrième vague benn benn surprise du am dinañu jël les devant ba nga xam ne li ñu daloon ci deuxième a troisième vague bi ci ci dépassement du ñu dal dinañ ko mën a gérer avec avec avec résilience duñu mën a sonn mm, émotionnellement mentalement psychologiquement mm-hmm. et même financièrement ñu fexe ba nga xam ne li ñu daloon dootuñu dalaat parce que loolu kat moom mooy jàngat ci réew moo xam ne réew mu sérieux la. Mhm. Euh, ñu yaakaar ne rek euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a déglu seen doléance yi wala seen cri de yi dinañ leen ci bàyyi xel amaana ma indi seen saafara ci lépp lu soxal seen euh, prime d'indemnité yi mbokk auditeurs yi ma fàttali na yéen ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé tey nag ñu amoon mbégte ak bànneex di dalal ki doon dalal ki nga xamante ne moom moo di Elimane Fall nekk président du collectif du centre de traitement des épidémies waaye tamit nekk réanimateur foofu ca hôpital Dalal Jàmm fàttali ni SOS santé Fatou Baba Fall mu nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarala bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité